parce que vraiment tey moom 7TV euh, ñu bëri ñu ngi ñëw ñii di woote ñii di yónnee ay message euh, maaleykum salaam honorable Cheikh euh, Ba Abdou Bara Dolly moom la ñuy dalal Cheikh pré honorable Cheikh Abdou Bara Dolly di député di acteur politique yor partem moom tamit ñëw témoigner ci bés bi Euh, mu di ñoo xam te ni dañu yëg nouvelle bi rek ñoom ñëpp ku nekk bëgg ñëw témoigner kenn woowu la euh, nga dagg sa yitte loolu rek am na lu muy lu muy lu muy exprimer mu di ñun ñëpp ay nit lañu waaye ñun ñëpp tamit ay sénégalais lañu am na lu ñu boole ba kenn warul yéene moromam lu ñaaw. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sénégalais yi tey sama xol dafa neexul. ndax euh, depuis suba bi ma ko yëgee ba léegi lu mu mën di def dinaa ni naa déplacé wu ñëw. Mm-hmm. ndax suñu diggante ak may ak taxawaay bi muy taxaw pour réew mi rawat na mu nekk jigéen lii ñu ko def muy lu ñaaw loo xamante ni àddina bi yëpp condamné nañ ko képp koo xamante ni nit ku baax nga war nga ko condamné di wax ni lii tentative de assassinat la. parce que nit koo xam ne dafa pare liggéeyam dem këram nekk jigéen nga bett ko def ko jëf ju ñaaw ji kii da nga amoon yéen pour rey ko ngir mission bi nga xamante moom la doon def. Hmm. mu arrêté ko mais ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko. te di ko encouragé aussi mu gën a góorgóorlu parce que képp koo xam mas nga jóg pour def lu baax sa réew lu mel ni dal na la mhm. boo xoolee sa bas lislaam ki njëkk a rey si lislaam sax jigéen la mhm. kon jàpp naa ni moom bu fekkee dafa nekk jigéen tey jii mu nekk koo xamante ni dafa àgg fii mu àgg ñëpp xam ni njàmbaaram ak góorgóorlu moo tax mu àgg si fa ñu bëgg ko tij làmmiñam yaakaar naa lu mel ni état du Sénégal war na jël ay responsable parce lu ëpp tuuru parce que man lu mel ni maa ngi ko doon gëj a gis ci jamonoy laas 24 heures no jamono yooyu laas euh, lu mel noonu laa gëjoon a gis jamono yooyu yaakaar naa jeex na fi mais bu ñëwee tey jii ba jamono yi ni euh, ku si mel ni Maïmouna Ndour Faye euh, fi mu toll ci réew mi ak fu mu toll ci taxawaayam ci liggéeyam ku ko encrassé wul wër loo ko décroisé parce que nit koo xamante ni da ngay invité ku nekk. di waxtaan ak ñoom ci li nga xam jàpp nga ne mooy intérêt Sénégal te kenn musul gis nga farfarloo képp koo xam def na loolu ci cas man di bokk yoon daf la war a traité jàpp la aussi tamit na la tëj la ndax lii moom buñ ko arrêté wul. yaakaar naa ni dañu dem ba ay jëmmi jamono kenn deetu ñi may wax te yaakaar naa loolu war naa jeex ci réew mi. Mhm. parce que ñu ngi jëm ci ay échéances électorales journalistes yi nga xam ñoom ñëpp ñoo war a wax li nga xam mooy li war a leer war a dëgg ñu tàmbali ak gun foofu noonu ñuy tàmbali di xoqatal askan wi di xoqatal journalistes yi bëgg a seen gémmañ pour que loolu bañ a am yaakaar naa loolu nag état moo jël ay responsabilités ni nga xamante ne noonu lañ mën a jël ay sécurité seen bopp ñu aar population bi aussi parce que may mun a waroon na àgg tey foo xamante ni waroon nañ jël ay éléments de sécurité ñu di ko aar parce que taxawaayam ci réew mi am na ay noon yoo xamante ñi si ginnaawam pour yàqal ko te lu mel noonu bu ñu ko yàqalee askan nañ yàq Sénégal na yàqal ndax fi mu jiite ñi ay njabootam ñoo fa nekk tey kenn ku nekk tey yaa ngi bàyyi sa ñëw ñu ñi bàyyi suñu njiit yëpp ñëw ngir que li nga xamante mooy lu ñuy wax lu dëggul ngi ñaan état Sénégal jël ay responsable ki def ñu jàpp ko mhm. parce que lii la koo xam ne da laa war a yow yow yow da nga pare sa liggéey guddi ñu xaar la sa kër mais xanaa sax yow fekkoon te da ñeme sax nga kii mais jigéen mm-hmm. am na ay góor yu fi nekk pourquoi pas de moo si góor ñi kooku yaakaar naa ni ku mu naqariwut tey Sénégal gépp dañoo waroon a maase après def solidarité ñëpp ci ginnaaw may mun a même presse pourquoi pas parce que yaakaar naa tey ji voilà mais mais mais mais tey condamnation bi dafa war a gën a yokk parce que lu mel nii dafay yàgg si bundu ay journalistes yi mais lu mel nii nag dafa ëpp te lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru lii sa Ibrahima